bu fekkee euh, Sarah noppi na on la retrouve pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé ce matin euh, foofee nga xam ne ni euh, moo di Dubaï Expo Dubaï 2020 pour parler donc de cette cérémonie officielle d'ouverture du pavillon Sénégal président Macky Sall mu ngi fa woon président Youssou Ndour mu ngi fa ak yeneen ci ay kilifa yoo xamante ni dem nañu pour jaay Sénégal lay nuyu bu baax di la féliciter yaak say équipe ci émission bu bees bi nga xamante ne euh, moo di midi plus ku xool ni ma solo tey nga xam ne nag Sénégal moo ayee fii ci euh, Dubaï euh, journée nationale bi tey la ñu ngi fi nga xamante ne mooy Alwasal Plaza Alwasal Plaza nag bu ko déggee mooy li nga xam ne mooy xolu exposition universelle bi fii ci Dubaï pavillon Sénégal nekk juste à vingt mètres du Alwasal Plaza balaa ñu yegg ci pavillon boobu le nag boo sama gannaaw yaa ngi gis délégation yi tàmbale ñu yegg si délégation Sénégal fii ak simili rek ki nga xam ne mooy njiitu réew mi Macky Sall dina ñëw amal fi euh, discours programme bi nag nii lay tëddee bu cérémonie bi euh, jeexee dina dem visiter pavillon bi nga xam ne mooy pavillon Sénégal bu fa euh, jógee daal di dem ci pavillon Émirats arab uni ndax loolu mooy consolider les relations traditionnelles bilatérales bi am entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis bu loolu noppee dinañ am pause déjeuner ngoon si nag ci la fas yéene daje ak taskatu xibaar yi si benn conférence conférence de presse balaa ñuy terminer ci li nga xam ne moom la ñu tuddee euh, le country business forum maanaam waxtaanee euh, mbirum koom euh, investisseur yi ñëw déglu li nga xam ne moom la entrepreneur ak opérateur économique sénégalais indi fii nga xamante ne moom mooy Dubaï. kon nag mu mel ni loolu mooy programme bi bu nu noppee ci loolu suba le 14 moom day nekk ay rencontre B2B entre le secteur privé et les investisseurs mën nañu wax ne daal lii mooy agenda journée nationale du 13 et du 14 euh, di jox nag dig daje euh, téléspectateurs yi si benn journal du forum bu nuy amal incha allah TFM ngir euh, vraiment rapporter leen li nga xamante ne moom moo xew fii ci Dubaï di la jaajëfal bu baax. man duma la jaajëfal je t'embrasse très fort non il faut que ma defaral ko kii bi nu mu tudd kàbbar bi Sara jar na ko yéen da ngeen da iñaan ñoom Corombaar Ndiaye dañoo iñaan ça c'est pour toi Sara. saara yàlla na nga gudd fan fiil yaa ngi wattu sax man de xaw ma fan laa jëm ak fiil yu bëri mais bon c'est les aléas du direct merci Sarah donc Sarah euh, Cissé ak euh, Hamza bu maman Henriette euh, la ñu àndaloon euh, fi nga xamante ni moo di euh, Dubaï Expo Dubaï bi pour parler donc de cette cérémonie officielle d'ouverture du pavillon Sénégal dinañu ànd ak ñoom xam naa bu ca kanamee ci jotaayu xibaar yu télévision Futur Média ak rédaction bi puisque ñun lépp loo xamante ni xew na ci réew mi wala soxal na Sénégal on en parle et puis on détaille ça donc merci beaucoup ma très grande Sarah Cissé que je t'admire Mais il y a une autre personne que j'admire encore.